Fan, fan, fan, fan. Laro, laro, laro. suñu président boobu nga xam ne fierté la ci Sénégal waaye fierté la fii dëkk bi mu juddoo muy commune Fatick de la République Macky Sall muy le meilleur président du Sénégal bu wetti monsieur le président de la république yaay sunu fierté dañ leen naw dañu ànd ak yow te ñu dellu ginnaaw monsieur le président ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar di la félicité di la nuyu fii ci département de Fatick li ko jar moo ko jar ndax jigéen ñu baax ñi ànd ak man jóge Dakar fenn ku ci nekk yaa ko tee tëdd yaa ko tee nelaw ci jàppale la ci liggéey bi ak nekk sa ginnaaw di la jàppale waaye rawatina waa Fatick su ma nuyoo son excellence monsieur le président de la république damay nuyu sama xarit Adja Mara Faye Sall di teel président de la république fii di dëkkam mu jëf ci lu rëy ànd ak jigéen ñi di liggéey boobu ba léegi jàppale borom këram madame Sénégal a ngi koy nuyu di ko sant bu baax di ko gër di nuyu nag ñi fi teew yëpp yëpp di nuyu le premier magistrat de la ville de Fatick mon frère Ami Matar Ba di ko nuyu bu baax ko sant di ko gërëm ci accueil bi su ma ko nuyoo nuyu naa la première adjointe au maire honorable au conseil des collectivités territoriales ma sœur Aïda Diouf mi ngi teewal tey la la mairie de Fatick su ma nuyu Aïda Diouf nuyu naa honorable bi teew yëpp su ma limee damay juum nuyu naa képp kuy jigéen nekk ci région de département de Fatick maa la fekk fi nga toog di ko sol ma loxo naan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. su ma nuyoo Aïda Diouf dinaa nuyu sama sœur honorable madame Baro conseil économique su ma ko nuyoo dinaa nuyu honorable Binta Mbaye Seck moom tam di kenn ci département bi honorable maa lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm ci mobilisation bi su ma la nuyoo dinaa nuyu ay def Diouf Diop honorable moom tam maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax moom tamit di ko gërëm moom tam depuis commencement bi ñu commencé toppatoo événement ba léegi tëddul nelaw muy taxaw bi comme ni ñu am remercié nii bu pratique sant baa di ko gërëm tey ak léegi. di la nuyu di la sant di la gërëm ci mobilisation bi waaye ci engagement terrain monsieur le ministre le maire de la ville de Fatick. nos petites sœurs, madame la directrice Thérèse Faye Diouf di ko di ko sant bu di ko gërëm ci accueil bi ma réservé tout à l'heure loolu du tey ma taxaw sama wet déedéet maa leen nuyu di la sant di la gërëm di mon frère et ami Birame Faye bu di ko sant moom tam di ko baax di ko gërëm di nuyu nag tous les de Fatick su ma limee damay juum waaye maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn parce que benn mobilisation yéen a ko waral kon sant naa leen gërëm naa leen. tey nag mot de remerciement laay wax ci li nga depuis six jours maa ngi ci région de Fatick ak région de Kaolack. ci instruction de monsieur le président de la doom mu ne man damaa bëgg sama gouvernement ñi fi nekk ñu wàcc ci askan wi seeti leen conseil ay jafe-jafe lépp lu ci mën apporter comme solution ou bien comme contribution indi ko ci ma déménage sama ministère la déménagé tous les projets et programmes tous les directeurs ñëpp laa mobiliser te intervention yi def ci commune bi ak ci département yi ak ci région yi ñu war ko askan ma leen ci sant di leen ci félicité bu ma lim kenn bàyyi kenn képp koo xam ne am nga programme am nga projet commencé ci organisation de féminine ci fonds yi ci palam ci PADES ci képp koo xam ne fa def EJ képp ne projet nga rek ñëw nga ànd ak man tournée pendant six jours maa leen sant bu baax di leen remercier di leen nag bu baax délégation bi mu àndal jugee Dakar su ma limee dama koy teg. dèjà ci ki nga xam ne bii moo jiitu ci délégation bi mooy Mbacke Niakhoso parce que mooy au conseil des di nuyu madame la présidente ay sugu ma sœur di ko remercier di ko sant di nuyu yéen Mbacke Seck moom tamit boobu léegi ñu am délégation di ko sant di ko gërëm. di nuyu Mame Fall spécial président de la République di la vice la deuxième questeur de l'Assemblée nationale ma sœur Awa Niang pour nga décider. di sant nag di gërëm bu baax ci ñoo xam ne ñii mënu ma leen a fay di jot ci Ndiaye Ngom sama sœur ah ma lool jàpp ma lool fu ma taxaw mu taxaw sama wet. di wax ci lu man lu baax bu ma teewee ak ma teewee mu jàmbaar président nag may seede ne fii ci Fatick damaa dégg madame la ministre ngay dem Fatick ba booy sama nopp bi ndax jaay ko xam naa ni fu dëkk ñëpp xam naa ne Amine lay xam naa astu vraiment sonn ci waxu waa Fatick ak jaay ko loolu dama koy seeti fii ci askan bi toog mais ku ma gën a sawar ku mu ne Fatick moom ci la bokk léegi ma dama dama lay boole président dama lay boole président parce que ma ko dëkkam te mooy président de la République ma ko wax nga dëgg kon jaay moom waa Fatick moom laa fay di gërëm Fatou Diagne Seck moom tam la même chose muy jàmbaare président moom tamit di ko ànd di ko jàppale moom tamit bu baax am fulla am fayda di liggéeyee li nga fekk bu muy boole am activité am engagement sabar si li muy def ak jàng rek maa lay nuyu baax di la sant la. xanaa su ma li naa ñëpp sant naa parce que lii moom yombul mi di gi suba nga ba benn heure bu ko xaar sa ministre. waaye lu ko jar moo parce que président moo ko yónni yow nag seet si jigéen ñi jàpp ne jigéen ñi seen ci réew mi président xam ko bu baax di ci liggéey liggéey bu am solo mais plus de la moitié de la population sont des femmes kon pour que Sénégal nekk un pays émergent il faut que jigéen ñi teg leen en première ligne jàppale leen renforcer leen. indi leen autonomisation économique parce que bu amee amee autonomie yaakaar naa jigéen ñi seen taxawaay dafay gën a dëgër. foofu laa jàllee nag ci waxu coow réew mi xam nga président dafa garant Sénégal ndax bilan ci li mu def ci liggéey di liggéey bari di wax tuuti kooku mooy président Macky Sall. président Macky jigéen ñi xam na jigéen ñi dañoo war a mu def ma ministère ministère de la femme de la famille et du genre et de la protection des enfants ñu koy doxal président jël jigéen ñi teg leen en première ligne autonomisation économique des femmes et placée en axe prioritaire dans le plan Sénégal émergent loolu moo jigéen ñi seen xëy seen koom-koom dama ko teg sama kanam loolu président dana Macky Sall loolu la dëkk ci réewu Sénégal ñu comprendre nag loolu nag ci biir sama ministère mooy dañoo bëgg ba fexe ne jigéen ñi ak góor ñi ci réew mi lépp lu répartition fruit croissance góor wala jigéen dañ cee war a am yaat wàll. te wàll bu ci am nag góor ñi ëpp war a fexe ba renforcer jigéen ba ñu dab góor ñi loolu mooy genre wax dina lu bari bari bari rek président tëj na débat bu yàgg procureur na ko. parce que nee na président de la Sénégal lépp loo xam dafay dafay tëdd ci te loo xam ne sagalul dañ ko xaar ci keneen waaye doon ci président de la kon loolu débat est déjà trop waaye nag comme ñoo xam ne am seen agenda di ko déroulé ñu am seen agenda di ko déroulé bu ñu ubbee bii passé boo passé ba xam ne mënut a jël tëj ñu tëj ñëw ci ku beneen xeex nañu fi ne président day xeex daara yi président Diouf mais madame le ministre maa bëgg a renforcer Sénégal na ko fekk na ko indi jàppale na ko parce que jàpp naa daara yi seen contribution bi am ci réew mi éducation yi kenn mu leen a fay. mu ñëw fii département bi ci région de Kaolack fan ku fi rek naa appui jox la loolu président moo ko bëgg mu def na ci mi loo xam ne benn nag président mosu koo def ci diine ji ak ci lislaam ak chef religieux yi kooku mooy président bi fonk lislaam bi Sénégal. président de la république Sénégal yabu ko étranger yabu ko